الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ثبت لساني واهدي قلبي بجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنتقنا الله الذي أنتهى كل شيء وحلهكم أول مرة وإليه ترجعون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 وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ngi jëkke ci yàlla moom mi nga xam ne lépp mooma lépp kenn rek la kenn ki amul ñaar bay ñett <laughs> subhanahu wa taala bu ñu mënee ne attahiyaatu lillaahi kon bu ñu taxawee di nuyoo nanu ji jëkk ci yàlla ni ko bàyyi lay waxee inna diina an nasiha wa amma an nasihata fa hiya an tansaha lillaahi moo jiitu wa rasuli wa kitaabihi wa li aimati diin wa li te nag kaan allahu wa lam yakun shay'un xayru lahu ma fi samawati wa ma fi ard baat boobu nag moom la sunu borom di ubbee ay kàddoom nu ngi koy ubbee sunuy kàddu di ko ubbee appel bii Nous doore fi ci ki waxone je suis le premier mu ngi et le dernier mu ngi nii ndax mo jitu yonent bi waaye mooy mujjewaat yonent bi je suis l'alpha et l'oméga si alpha b grec Alphabet, bi taxaw taxawaayu lettre bi jëkk boo seetloo kaalak Seydina Isaa gi alpha bi ni mu bindo noonu oméga bi kaala gu ñuul gi ni oméga bindo non la kaala gu ñuul gi bindoo ci bopp je suis le commencement et la fin ginnaaw banda Isa, shay'an

si sama baay ta jaaroo ci man moo damay xol bam yag mané na xam appel bi day ne ko sayna isa mu sayidina manjon terele ni pèlerinage bi ni mu ko ni da nuy xeye yo point de départ bi fan lañu jubal penku ngon gi fan lañu jëm saw rabbul mashriqi wal maghribi <laughs> hein waaw dañuy xëye yoof jubal penk jëli ji bagaas ya ya fa des saw indi bagaas ya fa ko yàlla dencoon ca xuntama ngor sa ëllëg sa ñu ñëw ci kooku nga xam ne moo waral yëngu-yëngu suuf la woon fa penku la yàlla wëlbati indi ko ci saw min muhammadin ibni abdillah ila ibnil hasan loolu la malaaka ya doon wax ba ñuy toxal yanu ko rek min muhammadin ibni abdillah ila ibni alxasan loolu rek la ñuy wax bàyyi laay nga tëdd fu mu tëdd bu yan bi daanuwul hmm. ne incha allah bu ñu fii lañ may fekk malaaka yi romb dugg yoof dugg nga paru booba laayeen amagul fekk bàyyi fa mu jaaxaan ca dënn ba malaaka yi daal di fay teg jant ba mu ne budda kay mën a démb mën a tey maa weexoon démb maa ñool tey bu ko defee yàlla moomu nga xam ne moo dogal loolu xam ni na wala kulli shay'in qadir yàlla kenn du laam-laamee ndax mën na wala mënul nee mën naa lépp no ala kulli shay'in qadir yàlla moomu la nu ubbee moom mi nga xam ne moo yónni bàyyi boole kaak seedeem bi Seydina Isa di doomi Maryam motax mané bat bobu baat boobu yàlla na yàlla barkeel sunu appel bi ba nino ko doré fi ci Cambérène ci bismillahir rahmanir rahim ñu sottale ko nonu ëlëk ci alhamdulillahi rabbil alamin aw ma nag sikki sàkk ci ne ndam du nun bàyyi laay ko moom wala khat sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalin إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يهذركم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ما تحمل نوا بايلا يكوك دملي دما نيو خول بام ياغ منوا اسك نيوم لا باتاي سا هم دا فا ملني دانيو غنا سكان دي ولا نيوم لا ولا يلا هي نغي في با ليغي walaay di ngeen fi yàgg dinaay wax ne bu nu ñaanee yàlla fekke ko ren sant ko yàlla ñaan yàlla fekk ko déwén du nu ko ñaanal oote bi ñun ñii lañu koy ñaanal ak yéen ndax oote bi fekk addunaa ngi fi fekk jantaa ngi fenk penku di suuxe saw jant bi kenn mënu kaa fay képp ku mënul fay baatu laa ilaaha illallaah loolu rek laa koy làyyi ne فما أنزلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لولو كاسي لاي لاي الأوتي باي لاي لن لأندي كلمة لا إله إلا الله بابري اللي جنو يمي موي دف سي لوتي كين دفول بوا كيروم سا دنج نان وا لايل تيغي كتي باتو لا إله إلا الله أهل الله moo man ñun ndax bay lay mako oté won woon dem na Seydina Isa dem na Seydina Mandione dem na waaye oote bi tok fi rek sayna Isa mu sayna manjon ñëw siwal ka dem na bàyyi ko fi fa awha ilayhim rabbuhum la nuhlikanna zalimin wala nuskinannakum al arda min ba'dihim dhalika liman hafa maqami wa hafa waidi wala nuskinannakum al arda oote ba lay wax nu likka zalimi am ñu sonaloon bàyyi laay ñëpp dem nañ moo tax ma ne oote boo xam ne ñi koy gëm di gëm ba dee bàyyi ka fi ñi koy weddi di ko weddi ba dee bàyyi ka fi jéem kaa fay óorul yii óorul óorul bu ko defee ñu sant yàlla julli ci yonantaam bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàccuwaayu démb ak mu tey xam naa bu ma nee wàccuwaayu démb ak wu tey bu ñu nee Seydina Limaam ñu ne sallallahu alayhi wa sallam am ku ne astafurla astafurla ak a ñoo ñi me yàlla ma laajal ko ma laajal ko ah. lu tax lu tax bu ñu nee Muhammad ñu ne sallallahu alayhi wa waa ji bëgg maa tonte ne moom la yàllay wax ci alxuraan منكو إن الله وملائكته يصلون على النبي لوا على النبي أخل على محمد على النبي أنبياء يبرين على النبي ينكن محمد الله عيسى وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت kon baadu isa comme moom muy mujj ci kaw suuf anan nabi anbiya yi moo ci mujj wa mubashiran bi rasulin yati min baadi ismuhu ahmad ah lu tax ñu ne muhammad mooy ahmad bi ñu doon wax ahmad la yàlla wax loo isa isa wax ka mu wàcc ne muhammad ñu ne waaw bi jaxasoo ala nabi mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad nabi ahmad kii ne muhammad sami i muhammadan الأمر أكتمي أي كتمان فتعتنمي إذا ودعتيه لما لاك موخون آمنا سمي محمد تأيسا ahmad ba pare واي بني bi waxe ay sifatam ay turum yu bari lañu xamne ndeke li sëñ Tuubaa nan wa nabi wa rasul wal halil wa huwa al habib wal imam wa dalil wa nabi kon mom la ala nabi kon mom la wa rasul ya ayyuha rasul ballix ma unzila ilayka min rabbik ah kon mom la al halil moo doon na baayam ba Ibrahima wal xabib mooy soppe bi yàlla ba huwal imaam kayfa antum ida nazala ibnu maryama fiikum wa imaamukum imaamukum minkum ñuy seeti beneen imaam imaam la ñëw na ba way gaaya door lañ tumiram yaxtafoor wa imaamukum